hip hop dafa war a fay man tax hip hop pour mu ma yéen mooy tax moom mu ma gëw ma nday toog war a nangam saam gars yi ñëw leen fi ñu conseil bara nangam sangam gars yi bu ñëwul check check check oh. check it oh. na gars yi teew ñu hip hop no guy telling you hip hop. No guy telling you hip hop. For real. No guy telling you hip hop. Kept a microphone to my deaf hip hop. Kept a microphone digga man gonna pop. Kept a microphone digga yo the drum a top. Mangi rap, the kept a microphone drum a top. Mangi ni di rap nigga kola musoma kham. Kept a microphone mangi up the khama kham. Digga dumb top. Paska a top. Dama yaga tell hip hop on my dumb down. Kept a microphone digga kola dama rap it down. Go mulla. parce que gëwuma la gëmoo hip hop ndigga yow de gëwuma oh, la képp a microphone képp a microphone képp a microphone damay mag bi foon parce mooy sama gel képp a microphone ndigga xoolal li may def parce que mooy sama gel parce su ma tooyee moom ma may fight képp a microphone damay rap di la fight oh hip hop eh, mbedd da nga foog ni yaa ma daa xar rap mbedd maa ngi nii ci mbedd laay daajee rap oh. man damay tuuf nday ci mbedd fa laay rap oh. man dama accès motherfucker boy sama oh. game doon nday accès motherfucker ñu ngi may bu rouge teg naa game bi féegi laa jox carte rouge underground from the street from de mbedd from eh, ko from the foos eh, ñaata jàgg laa fi ñam boy ko toppandoo motherfucker boy duñ sa mappandoo dawal génn underground baa ngi nii ririkal mag nam duus duus motherfucker boy say raam gis xëpp si suuf ah shit jox beneen daaj dañu aji motherfucker boy rap yi ngay laaj bu ñuy seene problème de kam wala problème de fëkku motherfucker boy ñu nga ñu dañuy bokku def nday rap rest in peace Tarando from the Boku Echoes face from the side and toe from the buckle plan. Hey, hus, yaa top sol yaa ngi sol laafa bu zone da ngay def foot, ma def la carton zone nga def rouge ma def la carton rouge képp microphone digga man de dumo ma mës a ruus xam nga tax du microphone laa gëm tey ak démb képp microphone li may def mën de démb Keep si microphone yaa ngi sol Adidas képp microphone digga yow ma la las man la las last king képp microphone Digga, nga xoole yow na may sa king képp microphone Digga, nga doomam mu sa daf king Digga, nga young la mën yaa ngi sol microphone Digga, nga wee ma may la buun microphone Digga, nga doomam mu sa daf maa ni di rap rap di fly képp microphone damay jël fly fly képp microphone Digga, nga maa ngi Cincinnati képp microphone man la ma sa Cincinnati. This is a bad niggas. badde respect respect bro respect respect respect ko la mo nigga wusso man bay fu ñu waxo man badde man badde xam la la laaj ah géejawaay am na ay rappeur ah non géejawaay amul rappeur man gëmuma lool man xamay tax xës man yëmbal laa dëkk mais yëmbal am na rappeur xamay tax loolu tijjee loolu loolu loolu mbedd mbedd yaa ngi def lu dangereux tijjee loolu waaye man xoolal mbedd yaa ngi def lu dangereux man géejawaay laa dëkk man géejawaay laa dëkk xamay tax déjà rek man am M6. man ma dàq rap day géejewaay you know what I'm saying. c'est que xam nga comprendre ko. yaa c'est am na M6 yu ma gën a taxaw. géejewaay mooy m <laughs> ak a bëri ay rapport bëri ay nante. xës géejewaay mooy M6. xam nga la war a demee mbir. yaa ñaata m ñoo war a jaar fii pour ñu freestyle ñaata M6 yu taxaw. yoo xam te taxaw nañ mën nañ freestyle ñu jaar ñu képp mic ñu bring leen beat ñu freestyle you know what I'm saying.